man nga seede mhm. gis nga kii. déedéet. leen sama xarit moom dama koy nëpp Sénégalais. Mhm. parce que ñu man sama nit ku ko laal ma dal sa kaw. dara sa la la. dugg ni bala. kii mhm. dama. ko man maa ko bëgg. da nga naa àddina ko bëgg. kii maa gën a bëgg àddina. bu ñëpp dawoon man maay def. parce que alxuraanu karim kii ku ko laal ma dal sa kaw. ak koo doon. man dara frégañente wu ma maa ko bëggal sama bopp muy nit ku am valeur Soda Bousso waroon naa taxaw fii ah, insister ci loolu maa ko indi ci kii dëgg ba ma koy indi ci kii fekk damaa ñëw fekk ko mu toog ma ne ko yow lu niyaa ana yére wala hmm? ma demal ci armoire bi dugg hmm. may dugg di teg di dugg di teg Soda Bousso ne ma waa lii lan la ko ma ne ko xam ne naa la rek ah, mari su ma jóge wan Amérique doo leen ñëw sama kër da ngeen may seet saa su ne ba hmm. Jibi Diop defaluma baaraas si yéen su ma ne ko maa ngi dem ci biir yàlla mu ma demal. ñëpp a ko xam. ñëpp a xam sama diggante kii. ci waa kër seng <laughs> ma ko dama ni. waaw band yi ak muyul yi laay def ndax lu ñu xam yàqu ko Sénégal. boo leen wonee sa xarit ñu jaar sa ginnaaw waxal la loo xam ni su ko déggee bu amul sang froid rek dina ni waaw. wallaahi dëgg moo tax damay nëbb kii. yaay ah, di ko ñaanal nag Zeyna mii ñu takk. yàlla na bokk ci sëy yu bàkke. ndax nag yaay la de. yaay la de man moom hmm. dañoo am dañoo niroo tuuti. Hmm. suñuy doom a gën a yaru ci at. laaj doom a gën a man ku gis samay doom. réew mi nag dafa am ñu la naw. bay jooy. suñu séggee dara ci yow. dañuy jooy. dama bëgg nga def loolu. kenn mënu yàq nee naa la foo jaar yoon. boo jaaree ci kaw sax yoon la yow yàlla yàgg na yem ci njëriñ si war na gàncax gi la war a yàq saa kon moom ci li dafa ko gën a kii dafa ko gën a xam dëgg dëgg dëgg yi nga xamante ni ñaar la. sànq bi ma woowee dafa moo vivi kan la ñuy def sëriñ wala xam nga nekk situation am na ci ñoom de. bu dul dara xam. diggante la bu yee ak tey. ci xam-xam nag ci yéen ñu jógee waaye ñu fi ñëw ñëpp yaay seen mag kuréel ñu fi ñëw ñëpp yaay seen mag xanaa ñëpp gis nañ mun a seet lu ma doon mun naan nga doon xam ci siin di jël mooy daal mooy ñëpp xam nañu ne mais nag ak dina dina dina la xale boobu dina la saxal ak yéen boobu dina la saxal ak fédération bi nga am muy lii ndox moom la ñu ndox Thank you. déficit dafa am te ñu ko yaayee ñu ko déficit ni ñu ko moomee nag mooy ragal nga tëddee xëy na déficit te nit ñi da ngay jëlee say attaque boo ko fi dindi lu nga xam Viviane Four ba nga dem ci réew mi déedéet joxe na ko tey Dakar moom dafa joxe mu joxe dafa am boole a ba tax ñu jëlee ci seen jox am na lu benn doole bu ci jëlee bi mu mënoon a jël Sénégal ak képp ci réew mi te coono ci ba doon tàkk ndax nag ku yaay ak yàlla war ngaa xam fu fa